bii xibaar bu tiis daf ñu dab euh, ñu yëgal ñu ni euh, président Ahmed Amar euh, li nga xam ne lii du jaas ci kenn dab na ko muy génn na àddina loolu doon naqar indi tiis wu rëy ci biir université bi li tax loolu mooy président Amar dafa nekkoon ku ñu jigee kuy liggéey ak ñun saay buñ ko soxlawaan day teew mu bokk ci administrateur yu fondation UCAD daf daan ñëw ci suñu réunion yi te ku xam liy liggéeyam nga xam ni du woon ko am jot mais daawul tardé suñu benn réunion euh, ci biir loolu dafa def ni moom ku dal la woon ku teey la woon ku maandu la won té ku nekk ci biir ay jàngalekat xam ne jàngalekat moom euh, kaddu moy liggéeyam yëkëti kaddu moy liggéeyam mom say bu ko yëkëti won ci lu gatt lay doon te pour fajj soxla université bi li ci firnde bi ci mujj bu yagul dara lu wër suñu benn ndongo feebar bu metti dal ko ñu war ko yóbbu bitim réew pour faj ko moom mu génne juróomi million def ko

doon ñu jàppale ci njàngale mi jàppale ñu ci paj soxla yi bu fi histoire naree am sax ci nàngam ak nàngam lu ñu étudiants yi soxla moom day génne chèque yéem bind chèque ni faj leen loolu bu bu bu coow jib ku mel noonu suñu dëddoo naqar wu tiis lañ am bisu tey bii waaye nag ñuy ñaan sunu boroom mu teeru ko dugal ko ci àjjanay si